asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu bu baax yéen ñu ñuy suivre à travers Dakar Buzz saa su ne mbégteeg ca waxte la ñuy àndal di jàndoog yéen tey nag ñu ngi fii si hôpital bu Thiaroye dañ fi ñëw rek seet si euh, ñi nga xamante ne ni ñoo di nappkat yu fi nekk ak ñoom ñooñee nag si géej gi rek la ñu jëlee benn maladie ba nga xamante ne ni euh, maladie bu doy waar la parce que comme ni ngeen leen di gisee si ay bouton ñoom ñoo génn si seen euh, xar kanam yi seen yaram yi donc ku nekk rek am nga ci fenn si sa partie corps rek nu mu leen def comme ni ngeen ko di mbir mu doy waar ñu ñëw nag seet si situation bi lim gis ñaata la toll naka la leen dikkee autorité administrative yi lan moo si seen taxawaay ñan ñoo fi jot a ñëw seet si leen lépp rek damay ànd ak Malick si biir hôpital bi ñu dëkk leen suñu micro ñu gën ñu ko yaatalal waaye itam gën ñoo indil ay leeral si mbir mu doy waar mi ni ni mel ak surtout naka la leen feebar bi dikkee si biir géej gi. maa ngi lay nuyu. ça va soxna si ñooy jàmm man Paate Joox laa tudd. man maa ngi dëkk Saint-Louis Ndar laa dëkk waaw ah, feebar bi moom wax dëgg yàlla dañuy sant yàlla rek parce que yàlla suñu borom moo ñu ko teg mënuñu la wax lii la parce que si géej gi lan dale daal jàngoro la bu suñu borom bi wàcce daal ñu ngi xaar résultat yi xam ban feebar la ba léegi nag xamagun ko waaye métti na torop waaw instant biñ toll nii suñu loxo yeeg kanam yeeg suñu suuf yeeg yëpp ay metti daal waaw fépp fépp ay metti suñu yaram yi day tàng jër aussi ah si géej lan dalee wa bir geej lan dalé fan lañu non dañ doon tëmb dañuy tëmb di ter diggante bi rek dañuy tëmb tay te yeewu suba teeraat. ñu ngi dëgg ñu naan dafa am liquide bu ñu def ci geej gi ak li ni mel est-ce que gis ngeen ne noonu la. non loolu moom wóoruñu wax dëgg yalla yalla mo xam wa en tout cas dal jangoro bu dal la rek xamuñu lan la xamuñu poudre la xamuñu lan la dal yalla mo xam lan la ndax dañu yewu suba tëmb teer mu dal ñu quoi mais mënu ñu la wax li la. lan lañ leen jotta a gum comme ay soin ah waaw fi amna ñunu gëna nu gën a garaawle évacuer nañ leen mais dal bindal nañ ñu ay calmant jox ñu ñun nan ka. lolu aussi de dañu téré nañu nap kat yi ngir ñu nap bi bëss yi bañu xol situation bi kenn bu mu dem ci géej gi la la ka ngeen di sàkku si li waaw lolu dëgg la lolu sax moy suñu arrangement waye dana metti toram nang dana metti parce que ñun fii yoruñu fi yaay yoruñu fi papa yoruñu fi dara bu nu joxe bu nu lekkee suñu xaalis ñuy génne lekk bu nu naanee suñu xaalis ñuy génne naan te bu nu demulee géej dana métti si ñun trop waaye ñu ngi sant yàlla danoon ko maintien parce que ku wér moo mën a liggéey ku wéerul moom mënoo liggéey. si nappkat yi nga xamante ne feebar bi ñoom la laal naka la dikkee si biir géej. waaw affaire bi moom bi nu fee ñëw daanaka dara jotuñu de mais bi nu ñëwee commencé dem géej fii presque ay 4 jours mu commencé dal benn par benn. noonu la demee nag mais affaire bi moom metti na moom mais dañu yaayaan ci problème mu ndox mi la ndox mi parce que boo demul géej doo ko am mais boo demee géej rek mu commencé ñëw say loxo yeeg say kanam yeeg yëpp da am noonu la mujj ñëw nag mais noo yee ñaan dimbal daal di sàkkul dimbal ci gouvernement bi mu jàppale ñu waaw da ngay jékki-jékki rek xëy suba nii gis say yaram di fet par benn par benn di ñëw mais doo xam lu koy indi daal parce que boo ko xamoon xëy na du la daal daa ko mën may mais doo ko xam da ngay jékki-jékki rek di say loxo yeeg sa gémmiñ gi ak say kanam yëpp ma si am noonu la demee après sa yaram day tàngaale day tàng waaw day bokay wok sa day gën barre rek te bay léegi gisaguñu lu kay fajj moy ni di taxir lu rek xam xamaguñu lu kay fajj nak di sàkkul dimbal ni ci état bi. bu ñu naan dafa am ben liquide bu ñu sotti si géej gi ndax remarque ngeen lool ah lool de bàyyiwuma ko ci xel mom mais en tout cas dal say kanam ak sa suuf yëpp lay japp yëpp yëpp lay japp di def ay jaru xasan lay doon. yow nap kan nga bokk Dakar eh, Saint-Louis wala fa man damay dem ak dem di teer ni presque rek bu ma ci yàgg lool mais xam naa ne moom li ma leer ci leer mooy ci ndox mi la nekk moom parce que am nañu yaakaar ne sax saxaar la war doon parce que lii nii yàgg nañ ci géej mais mosul am ci géej mosu ci am noonu ciy doogaa gis ah noonu cee sàkku ndimbal rek bu ñu wutal nu lu nu faj wala bu ñu ko amul sax ñu jàppaleenu ay coppi mere même buñ ko dee jënd sax ñun bañuñu ko jënd mais nanu wér rek nanu wér xam nga wér moom doomu aadama moom boo wérul moom mënoo liggéey mënoo def dara lépp lu waaye am wér ak a gën daal nooyee sàkku ndimbal pour wér daal. ñu bàyyi la nga présenté. waaw ah, salaamaaleykum euh, mbokku dëkk bi salaamaaleykum mbokku Sénégal man la Moustapha Diop président union nationale des pêcheurs artisanaux du Sénégal secrétaire général collectif local des pêcheurs artisanaux de thiaroye sur santu nga dikkaatal ñu si li nga xamante ne ni moo dal sa naataango yi di feebar bi ak naka la leen dikkee. waaw man dama toog sama kër euh, ba mu yàgg ñu woo ma téléphone wax ma ne ma am na mool yi daal ñoo fees sa hôpital bi parce que dafa am benn jàngoro boo xam ne ni daal na seen kaw après si laa ne xaaral ma dem xooli nu mu xew ma ñëw juste fekk fi président collectif local des pêcheurs artisanaux de thiaroye sur mooy Momar Mar ki ma taxawal nii après si la ñu expliqué. ma fekk presque euh, une cinquantaine de personnes ñu tëdd affaire bi tamit dal leen bi ñu ñëwé ba waxtaan ak ñom ñom tamit li ñu jotta expliquer moy euh affaire bi dañu jékki-jékki rek commencé di ka gis seen yaram mu nekk euh, ben épidémie bo xamné fay japp seen gemmiñ yi japp seen loxo yi di genn ay picc seen yaram yi ba japp seen bët yi sax ak seen awra après ci la tamit ñu waxtaan man ak ñom mais ki ma si njëkk a waxal moom daf ma wax ne ma ñoom bi ñu jógee Ndar ak léegi Saint-Louis quatre jours la def ñoom ñu ñëw Caaroy mais benn yoon deux fois la ñu tëmb dem géej ñëw ñoom affaire bi laal na leen mais bi ma ko laajee tamit yan zone lan doon pêché man daf na ma li ko commencé diggante Popenguine jëm ba ñi ñoom euh, zone boobu dépassé wuñu ko maanaam duggunu zone Mbour te ñun fan yi passé amoon nañu information ci panel bu tudd la voix du littoral am ben journaliste bu tudd Amar Diaw bu ko fam annoncer won bi mu ko annoncer aussi don na lo xamne ne après kewul quoi siwul euh autorité yi aussi jotoonu ci ñun nak si lañu def tous les moyens euh, de communication ci liñu liñu xam ak liñu man pour wax euh, ak autorité yi alerter len alerter aussi presse bi comme jangoro mom dañ koy pour mu meuna am solution après si lañu alertenak. ko alerter nak ba yalla dogal aussi mu siw ba ministre de la santé aussi ci guddi gi mu ñew fi. wa man bima fi fiy boba ñu ngi recensé won lu tollu ci 84 vingt quatre cas ndax euh, euh, biig si guddi ndax euh, ministre de la santé aussi dafa ñew sama gannaaw fekk ne man demna mais mom xamna naa bi mu fi ñewé aussi amna lu mu fi bàyyi mais man fekkantew mu fi ak mom euh mais bima xeyé ci suba teel gi aussi ñewna fekkaat fi presque une quarantaine de personnes aussi ñoo toogaat ñoo xam ne dañuy doog a ñëw ñu ci 84 yi fi nekkoon demb ci la ñu jël liste commencé di leen recenser di leen recenser mais li ñu jot a bind buñ ci plissé 84 yi démb yi après ñu ngi woon ci 253 cas mais boobu ba léegi tamit ay ay dizaines ñu ngi ñëw di dugg boobu ba léegi ay am na booy continuer di ñëw ñu ngi continuer di bind liste bi xam naa incha allah. ba ci kanamee danañu mën mëna xam après nombre exact bi parce que dafa am ño xam ñu ngi ci kër yi té ñëwaguñu te boobu ba bëlé ñu ngi ñu koy euh, avertir tamit. Mhm. message bi lan la pour yeneen pêcheurs yi ak ñi nga xam ne nekk tam ci xam nga tey neexul tamit euh, si réew mu tollu ni ak situation jamono ji ak euh, ñàkk kom kom bi nga ne kenn bu liggéey ñu ngi dañuy lancer appel rek ne autorité yi état Sénégal ginnaw yalla dogal na mu jël li en charge. Euh, te comme ni ko ministre bi waxee ak gouverneur bi mu fi ñëwee ñoom tamit nañu bàyyi xel aussi ci ñi nga xam ne toogloo nañu leen. ndax euh, zone bi yëpp tey bu fekkee ne affaire bi touché na leen toogloo nañu leen aussi ku toog war nga ko soutenir ci lu mu toogaale parce que wax dëgg yàlla ay néew di doole kese ñoom ñoom ñoom la affaire bi touché fi mu toll nii. Mhm. également ñu ngi bëri loolu lim bi ñu ngi toog ba si ay tuut tànk ñoom actuellement dañ leen di faj bay la ñu ñibbi wala naka la ñuy defee ak ñoom nii jamono ji waa jamono ji euh, maire bi mu ñëwee gouverneur préfet bi ñu waxee ak euh, commandant gendarmerie bi ñoom wax nañu ne dinañ leen jël en charge andi nañ tamit dinañ indi toutes les dispositions qu'il faut pour ñu jël leen en charge ba du ñu am benn problème si lekk ravitaillement si faj ci garab lépp ñoom dinañ ko jël en charge mais it ñu ngi leen di bàyyiloo xel aussi kane euh, fen yi doon mën dem geej mais ñi demul geej aussi nañu leen bàyyi xel bu baaxa baax xam du yomb ci seen côté dal ñu mhm. fortat aussi ci kàddu ñen ñi ne amna ñinga xamantene ni dalon na leen ñu faj leen bañu wër mais bañu démé ci geej gi dañ ko amaat melni rek euh, ñu naan dafa am liquide buñ fa tour euh, mo wara li ni mel ak loolu yeen information ngeen sa wa amna ñu xam mbuur la ñu jóge bi ñu mbuur ñu indi ko moy lima wax sanxa ci premier alerte bi nga xam amna ñu ko defoon ci mbuur ci ben panel ñooñu bi ñu ñëwee bi ñu jógee Mbour ba ñëw Caaroy am na si ñoo xam ne affaire bi laaloon na leen mais garaawul woon feeñ maanaam euh, ni mu demee ni demee ko woon parce que am na ay cas grave sax am na ay ka grave am na ñoo xam ne boo leen xoolee ñoom mënunoo sa dox léegi ñooñu bi ñu ñëwee xëy na affaire bi garaawul woon carrément moo tax ñoom après euh, ñoom ñoom bi ñu nekkee fii faju mais noonu dama kaa dégg rek maanaam gisuma ko quoi fa dégg naa daal wax nañ ne faju nañ wéer delluwaat géej affaire bi laalaat leen kon dañuy gis ne kon affaire bi ci géej gi la nekk ni ñu daal li ñu ci njort nag xamuñu ko mais xam naa après ñi nga xam ne ñoo yor wàll woowu environnement ñooñ suñ defee seen i étude seen i recherche dinañu xam lan la mais daal lu mën a xew booy yi nga xam ne ñoo nekkoon ci zone de pêche bi boo leen laajee dinañuy wax ne ñoom zone bi ñu nekkoon dina am ay diggante yoo xam ne ndox mi dafay niin te lu niin moom daanaka da ngay wax ne liquide moo ko niinal mhm. kon euh, ñu ngi njorta ne xëy na ñàkkul mu am liquide boo xam ne moom moo sotteeku ci géej gi lu mu ci mënti xew daal euh, na gaaw daal na gaaw balaa affaire bi di gën a garaw parce que toogaay bu yàgg bi aussi arrangé wul baa doola voilà tey jii dañu ñëwoon euh, ñëw xool si lii nga xam ni moom moo xew fii ci zone caarooy bi ca euh, ñu ko démb bi ñu ko yëgalee it fekk na am na il paraît ay prémices yu nga xam ni am na ñu ko doon constaté alors li nga xam ni moo xew nag mooy ay xale yu demoon nappi ji alors bi ñu ñëwee seen yaram commencé am ay futt foot ba jàpp ñeen ñi sax seen kanam ak yooyu alors démb bi ñu ko yëgee ci ministre de la santé en personne ñëw na fii xool leen joxé ay euh, ay ay orientation tay ji ma ñëw and ak préfet sous préfet le maire médecin chef de région médecin chef district euh, service des pêches commandant brigade gendarmerie ak euh, service d'hygiène ak yeneen acteurs yo xamni ñoy jappalé ci liggéey bi pour ñëw xol ci mbir mi mais également veiller à ce que li nga xam ni ministre jëlee comme décision ñu appliquer ko et yokk ci également lu nga xamni tay ji suñu ko défé xëy dina gëna tané alors biñu ñëwé nak gis nañ ni phénomène bi entre demb ak tay dafa mel dafa yokk ndax demb ci euh liste bi ñu waxoon nombre bi 82 personnes la won mais tay nee ñu mbir mi dem na ba egg ba romb 200 alors ñi ngi stabiliser chiffre bi mais su ngeen gisee mbolo bi nek ci poste santé bi war nañ mëna a ni loolu amna

ak environnement pour ñom ñu jël euh, ñu jël xalé yi en charge ci sen walu santé d'abord mais également def des prélèvements prélèvements pour xam mal bi lan la origine lan la ak nan lañ ko mëna faje mais également def prélèvement ci ndox bi pour xam ba xam ndox bi c'est effectivement pollué ou pas ndax mal bi ci ndox bi la jóge donc yooyu yëpp cellule technique bobu ñu nga xam ne mettre ko en place mom mo ci liggéey ci amna prélèvement ñu def ci yaakaar nañ ni résultat yi dinañ ko jot ci lu lu deuxième chose je dina une commission sociale parce que les yi ne pas bu ñu Nous ñu jël leen leen ba nga Nous sommes ci ben site ñu xaarandikum dinañ leen fa site bu euh, la maison de la femme bu nekk fii ci sur Mer ñu yobbu leen euh, préfet bu bu Pikine

le temps que ñu pare ci li nga xam ne moom la ñuy moom la ñuy moom la ñuy liggéey li ci des nag mooy ñëpp jàpp ci bu ko defee ci euh, tànk yu gàtt ak ci ci durée bu gàtt euh, vraiment ñu mu ñëw à bout de cette maladie la bu ko defee xale yi mën a dellu si seen liggéey. nañ ko waaw li ñu xamal maanaam bi ñu xoolee kayit yi nga xam ni tey jii euh, list bi ñi mu concerné gis nañu ñu bëre sax dëkkuñu dakaar

ba lépp luy mesure gouvernement dina ko jël pour assister population bi nga xam ne lii dal na seen kaw. sànq yaa ngi wax lu am solo nga ne fi mu ne nii ba tey mënaguñu wax ne lii moom moo tax moo jur moo jur feebar bi. waaw ba léegi nii mënuñu ko wax de manière scientifique euh, scientifique euh, mooy ñu def ay prélèvement mu dem laboratoire ñëw génne résultat loolu amaguñ ko. def nañ prélèvement yi dem na mais résultat yi yaakaar nañ ne xëy fii ak ngoon mu ñëw bu ñëwee dinañ mën a wax euh, exactement fan la feebar bi jógee lan ban feebar la lan moo koy faj bu ko defee mbir mi gën a gaaw incha allah.